taskatu xabaar bi nee na ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi maanaam am nañu doole genn xeetu am doole goo xam ne maanaam réew mi mën nañu ko bloqué ci benn fan maanaam 24 heures transporteurs yi mën nañoo bloqué réew mi kenn du dem kenn du mën a dikk loole nag moo tax ñi nga xam ne ñooy kilifa yi dañoo war a waxtaan ak ñi nga xam ñooy transporteurs yi ba ci journal bi di L'As mu xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall nee bu ñu xaar tey bu na accident ne moo am ci réew mi maanaam il faut ñu taxaw ci yéene kaay gi de la quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu gouvernement bu Sénégal ak mesures yi nga xam ne jël na ko ngir na xeex lu jëm ci wàllum accident yi am na si juróom-ñaari mesures yoo xam ne tey jii la ñu koy appliqué tey jii la ñu koy commencé doxala maanaam bokk na ci nag ñi nga xam ne ñooy horaire yi maanaam dañu leen di tere ñu voyager vingt-trois heures ba cinq heures du matin yi ba tey ginnaaw loolee tamit état bu Sénégal dafay oto yi nga xam ne dañuy def transport a jóg nit tamit bokk na ci li ñuy tere lu jëm ci wàllum porte bagage yi loolee tamit état bu Sénégal nee nañu dañu koy tere te tey ji la ñu koy commencé doxale ginnaaw loolee tamit am na mesure boo xam ne dafa jëm ci oto yi nga xam ne dañuy yokk place yi yéen kaay gi de la quotidien moo xëy ci juróom-ñaari mesures yi nga xam ne tey ji la ñu koy doxale yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na accident bi nga xam ne moo am fan yi ñu génn ca diwaanu Kaffrine limub ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan yokkaat na ndax barki démb 40 personnes la woon démb kenn koo xam ne yokku na ci jamono ji ma ngi ci 41 mort maanaam ñeen fukki nit ak benn ñoo ci faatooy journal bi di réew mi quotidien na ñi nga xam ne ñoo moom ñaari bus yi def accident ñooñee soo mooy tuwulee tamit maanaam jafe-jafe yu métte métt ko amal li ko waral bokk na ci ñàkku assurance ak ñàkk agrément de transport boo muy tuwulee juróomi ati kaso mën nañ leen ko tëcc journal bi de la mandat nee na mu gudd gàtt ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi ci ab grève générale la ñu jëm yéen i kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu ca diwaanu Kaffrine ca dëkk bii ñuy wax Sikilo xam ne fa la accident bi xëye woona bërëb boobee nag la fay am ci accident bëri na genn xeetu bëri koo xam ne maanaam jar naa xoolaat tey jii danañu fa amale njàngum alxuraana ndax dëkk boobee di Sikolo ki nga xam ne moo ko sos maanaam waxoon na ay sarax ay digle yoo xam ne dañu ko fa war di def yéen a kaay gi di waa Grand Place ñu xëy fekk fa Fallou Ndiaye jiite mouvement gindi askan we moom nag jamono ji li muy sàkko maanaam ñu dàq Mansour Faye ci bopp ministère bi ñu dénk wàllum transport a populi las yéene kaay yi ñu fekk fa député Pape Djibril Fall moom tim loolu la wax ndax nee na accident bu métti bekk jafe-jafe yi nga xam ne wàllum transport am na ko ci réew mi jamono ji jot na sëkk Mansour Faye ñu daal koy dàq yéene kaay gi de la turbine xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas ñoo ngi ngàcc ñi nga xam ne ñooy askan wi maanaam góorgóorlu yi nguur gi sonal na leen lool mën na la nguur gaa ngi leen di ngàcce ginnaaw nag bi mu yokkee li nga xam mooy essence bi gasoil ñu jëm fa la ñu jëm fa la ñu jëm yéene ko ñaari militaires yi di Fulbert Sambou ak Didier Badji Fulbert Sambou mujjee nañu ko gis Didier Badji ba léegi kenn gisu ko moo tax ñaari militaires yi démb seeni njaboot génn nañu janoo ak tasoot xabaar yi ñoom nag nee nañu li nga xam ne moom la ñu sàkko maanaam nag yoon li mu yaram mbir mi leer nañ ñi ñu xam lan moo xew enquête yéene kaay ñu koy fekkaat leen fa ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax maanaam kilifa yi nga xam ne ñoo noppi ci mbir mi ci mbir mi kilifa yi nga xam ne ñoo ci noppi ñi nga xam ne ñooy njabootoog Fulbert Sambou ak Didier Badji ñoom nag yoon la ñuy sàkko yéene kaay gi Les Échos ñu koy fekkaat leen fa ñoom nee nañu nguurug Sénégal dañu leen a seetaan jàppale leen ci dara te ñoom bëgg nañ jamono ji mbir mi daal di leer Didier mi nga xam ne ba léegi kenn gisugu ko ak njabootam nee nañu salaire bi ñu ko doon fay sax jamono ji dañu ko coupé maanaam dañu ko dagg yéen a kaay gi du l'Observateur xëy dañu xibaar naan ñu hôpital Dalal Jàmm ba ca Géejawaay soo moytuwulee musiba dana fa am ginnaaw nag ay weer yu bare yoo xam ne maanaam scanner ba dafa panne am na lu toll si juróomi téeméer ñoo xam ne dañoo amee jàngoroy ji tiit nañ ba maara day tale ndax scanner ba ci a kaay gi de la témoin xëy ñu rapport Cour des comptes ministre bi ñu dénk wàllu finance di Mouhamadou Moustapha Ba moom nag moo insisté ngir nag ñu daal di koy publier yéene kaay gi di xëy di ñu xibaar naan ñu li am ba de ci mbir moomee état bu ñoom ñoo ngi def ay sortie di wax ak askanu Sénégal ngir nag yey leen waaye tamit dalal xelu ñi nga xam ne ñooy partenaires yi yéene kaay gi di réew mi ko di jeexëy yóbbu ñu diiwaanu technopole ca Pikine foofee nag dafa am ñetti dawalkatu saret yoo xam ne ñoo yeggoon ci benn jigéen bu am fanweeri at ak xam ne xel mi neexu la kenn nañu ko loxo ubbi nañu ci enquête yéene